man Mamadou Ba ci seen kanam maa ngi déclarer sama candidature pour élection locale yi di ñëw pour nekk maire commune bu Porokhane sama candidature maa ngi koy déclarer ci samay biiru mbokk sama candidature maa ngi koy déclarer ci samay biiru xarit samay sama candidature maa ngi koy déclaré sama kanamu nawle ci sama ngor laa ko teg ci sama jom laa ko teg kenn du tàgg boppam waaye xam naa ne attan naa ko.